les israéliens ñi monté vidéo ba ñi monté photo etc. etc donc ñooñu nous avons indil ay matériels sophistiqué et d'espionnage. ñi tracé nous donc dañoo top Ousmane Sonko pour vous vidéo photo Ousmane Sonko di ñu top vidéo photo Ousmane Sonko remarquez arrêté vidéo enregistré Ousmane Sonko ñëw di wax ak mom waji continuer di ko enregistrer ay renseignements généraux lañ mu nangu téléphone bi ne ko da déverrouiller téléphone bi nga effacer enregistrement parce que amo droit di ma enregistrer amo droit may dox samay soxla nga may vidéo di ma enregistrer waji bañ Ousmane Sonko récupérer téléphone bi dugg ci biir kërëm ñu yone ko tonu gendarme GIGN ñu ñëw ne dañuy nangu téléphone bi lolu motax ñu ñëw ci kër ga dajji buntu bi. Miri, comme ay bandi de grand chemin dugg ci bir kër gi récupérer ko né dañuy récupérer téléphone bi téléphone bobu nak enregistrement Ousmane Sonko yépp lañ ci am manam bu génné ci buntu kër gaak buy ataayaak buy nan ndox ak bu duggé ya ci toilette yak ay njabotam buñ duggé ci toile ni enregistrement yépp mi ci téléphone yoy donc lolu mo lolu moy problème bi Ousmane Sonko def na leen arrêté lan di ma arrêté lan di ma vidéo sans mon consentement sans ma saam accepté ko ngeen ñëw dindi barricade yi fees fi dell ci sama koñ bi di ma enregistré monté fi seen i matériel di ma jël di ma récupéré di déglu li may def di déglu sama njaboot di déglu samay waxtaan di déglu lépp nga koy enregistré loolu lañ def lu ñaaw la gendarme yi def Ousmane Sonko bu mu réactionné wax waa ji arrêtel enregistrement yi la ko wax arrêtel di ma enregistré amoo droit may dox ay soxla nga may enregistré may julli ji nga topp ma may may ma ma pare julli nga topp ma may dugg sama kër nga topp ma arrêté leen enregistrement yi arrêté leen enregistrement yi waa ji lànk te téléphone bi di ko enregistré di ko enregistré Ousmane Sonko di wax ak moom mu koy enregistré di ko vidéo ci la Ousmane Sonko këfee téléphone bi ne ko nag carrément ak njëkk ne ko effacé déverrouiller sa téléphone nga effacé li nga ma enregistré amoo ci droit amoo ci benn droit waa ji lànk ne doo déverrouiller téléphone bi donc loolu motax enregistrement illégal Ousmane Sonko jël téléphone bi yobou ko këram ne ko nak kon di nga di ko dindi parce que amoo droit enregistré ba loolu comme ay gendarme lañ waxna len renseignement renseignements généraux ñu woté directement gendarmerie fees dal GIGN corps d'élite ñu wacc fa comme dañ leen instrumentaliser ñëw kër Ousmane Sonko dajj buntu bi tepp miir duggé fa nu né duggé ci miir yi ci ci ci ci balcon yi tëb dugg ci eh, daaj buntu ba dugg foofu donc jàpp nañ ko dañoo ñëw fekk ko foofu laaj ko téléphone bi mu ne leen man xuloo ma ak yéen jàppante wu ma ak yéen li ma bëgg mooy li ngeen may enregistré sans mon consentement laa bëgg ngeen dindi ko ngeen dindi ko waaye gars yi ne du ko dindi yanu ko moom ci boppam yóbbu ko gis ngeen nu dëkk bi mel ak nu muy doxee donc du dëkk justice du dëkk loi du dëkk démocratie jàpp nañ Ousmane Sonko fekk nañ ko biir këram fu enregistré nako ni la problème bi démé yanu nañ ko yóbbu ko kër ga nak visité nañ ko de fond en comble da dañuy récupérer téléphone bi problème bu mel non amoon na fi bañu garé auto def ci ay matériel sophistiqué di enregistré biir kër Ousmane Sonko bo sëkkaté sax ñu enregistré la lolu ba Ousmane Sonko jappanti ci yow nak ñom yeena ngi fatlikou Macky Sall dindi barricade yi yan fa plus de cent cinquante

na loolu renseigné nañ ko ci loolu donc bu mu waa ji koy enregistré ba mu ko waxee man lay ñaan nga déverrouiller sa téléphone dindi enregistrement yi waa ji daa lànk bañ ne ko ko dindi duma ko déverrouiller Ousmane Sonko nag comme mu ngi yoroon téléphone waa ji da ko këf ci moom ne dindil mu bañ ci la jëlee téléphone ba yóbbu këram ne ko bés boo paree pour dindi sam enregistrement yi nga ma ci enregistré amoo ci droit bés boo ko dindee ma jàlloo la sa téléphone man soxla ma sa téléphone sa téléphone du dara ci man soxla wu ma ko enregistrement yi nga ma enregistré yi nga ma vidéo topp ma di ma vidéo laa bëgg nga dindi ko loolu waa ji lànk Ousmane Sonko dugg këram ak téléphone waa ji direct ñu woo la gendarmerie nationale lu day ni GIGN instrumentalisé nga xam dañ leen corrompre ñu seeni boss yi ñooñu ñëw kër Ousmane Sonko daj ay buntu tëb ay miir récupérer Ousmane Sonko départ nañu moom xam ngeen ni nag ñu ngeen di xeexal régime mu bandi ngeen yor ay régime mu sulaar doomu drogué ñoom ñoo fa dajaloo ñooñu Ousmane Sonko rek lañ xiif buñ ko jekkoo lépp lu ñu mën ci moom dinañ ko ko def buñ ko munul dóor dinañ ko empoisonné dinañ ko sotti sotti ay bagage dinañ ko piis pompe bi dinañ ko dinañ ko toroxal dinañ ko wàññi donc loolu yëpp xam ngeen ni jamono xaj bés boo ko bàyyee ab dogu yàpp xam nga lu mu cay def xaj boo ko bàyyee dogu yàpp xam ngeen lan lan cay def xam ngeen lan la capable def ci donc comme Ousmane Sonko rek boo leen ko seetaanee mu nekk ci loxo yi xaj yi loxo xaj enragé yi ñu téye ko yóbbu ko ah loolu nag suba bu génnee ak ndigg luy metti wala mu fo lagat wala wala mu euh, paralysé wala wala dënd bi di di metti wala muy sëqat am feebar wala mu dee dans deux ans ci dee bu gaaw te loolu yëpp bu leen am lu leen bett parce que da ngeen ne seetaan ñu jël ko récupéré ko yóbbu ko def ko lu leen neex parce que ñoom Ousmane Sonko rek a leen të moo leen jaaxal.